thème bu ñu duppee enjeu ak défi bu jëm ci wàllum système aviation civile ak lu jëm ci développement wu ëpp aérien fi ci Sénégal union bu ëmb inspecteur yu jëm ci wàllum sécurité ak sûreté aviation civile nag ñoo doon xamale lu jëm ci seen wàllum fonction ci biir aéroport bi. Euh, rôle inspecteur yi rôle bu extrêmement important la si aviation civile parce que mooy tax ñu mën a assurer kaaraangewu passagers yi et aussi. intégrité des euh, des équipements notamment donc aéronef yi ak avion yi. ci atelier bi nag daanaka àddu nañ ci ay mbir yu bëri lu ci mel ni itamit lu jëm ci wàllum saytu bi lu jëm ci wàllum sécurité ak sûreté. suñ ci biir organisation ñu wax donc admettons pilote yi lan yan formation la ñu war a am. ah ñu war a wax agent de sûreté bi nekk aéroport lan la war a def exploitant bi nekk compagnie aérienne yi donc lan mooy seen obligation par rapport effectivement au transport aérien donc règlement yooyu yëpp donc bon bu ñu ko bu ñu ko utiliser dinañu permettre ñun suñu baat suñu wàll bopp ñun suñu inspecteur aviation civile donc ñu xool est-ce que compagnie aérienne yi est-ce que aéroport yëpp nekk na aux normes est-ce que liggéey baa ngi dox normalement comme benn policier bu nekk circulation rek. inspecteur yu yor wàllum sécurité ak sûreté aviation civile nag ñoom ñu ngi toll ci lim bu toll ci cinquante ci biir aéroport bi mu nekk nag lim bi nga xamante ni nii doyul bu ñu gisee seen mission bi nga xamante ni nii moom la ñuy amal ci loolee nag ay ndaw yi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllum science mathématique dinañ leen former jëm ci boobu la domaine ngir rek gën a dëgëral secteur boobee